promotion sortante 2019 bu faculté de médecine ak pharmacie di ay étudiants yoo xam ne dañoo war a noppi seenum njàng ci at mile ñoo amal journée de consultation gratuite di bésu paj boo xam ne doo fay dara ñu amal ko ci daara Serigne Mountakha bi nga xam ne moo nekkee ci daaru Tanzil ñoom ñi lee ñëw jàppale ñi nga xam ne ñoo di ndongo yi ci seen wàllu wér-gi-yaram. nañ defaale ay daare indi ko boole ko don de médicament ngir yombal lépp seetlu gi ñu seetlu ni daal. jot ci soins yi parfois dina jafe ci ndongo yi nga xam ne ñoo nekk ci daara yi léeg ndax manque de moyen bi nga xam ne dina dab sëriñ bi wala ordonnance yi léeg-léeg ni muy chéré wala it léeg-léeg hôpital bu fa demee euh, nga xam ni attente bi wala yooyu dina xaw a mën yàgg ñu ni nañ ko yombal disponible loolu ko ñëw jege si leen defal leen consultation ñu indi fii équipe bu takku ci ay médecins ci ay spécialités yu wuute. ba ci pharmacie boo xam ne taxawal nañ ko fa képp koo xam ne consulté nañ la ñu mën la jox ay garab lu ëpp ñeenti téeméeri taalibe jot nañ leen fa consulter. Euh, bi ñu tàmbalee ni ñu def mooy benn poste de tri nañu teg poste de tri bi ku ñëw poste de tri bi moo lay xool jël say constante yi ñu koy woowe bu ko defee ba noppi nag doole lay yabal ci table yi ñu organiser wu ci 23 table muy ñaar fukk ak ñett ci table yi nga xam ni moom nañ teg bu ci nekk am ñaari médecin yi fa nekk. di def consultation yi euh, ñu dem it pharmacie bi ñu organiser ko ba nga xam ne ku ñëw ci pharmacie bi pharmacie bi dinañu xool garab yi répertorier li ñu génnee. ñu fii ñu toll consulté nañu lu tollu ci 400 taalibe. waajuru ndongo yi nga xam ne jot nañ faa ñëw rafetlu nañ bu baax a baax jëf jile. xam nga dongab daara moom fu mu toll war nay ànd ak wér ak wérle ndax xam nga cet gi war ci ñoom lépp daanaka duñ mën a matale kon nag suñ gisee ku leen dimbale ci consultation gratuite bi loolu ak cant la. di sant yàlla bu baax ci tawféex bii nit ñu defal te jëmi si Mountakha rek tax. Serigne Mountakha Dieng mi nga xam ne kenn la ci jëwriñ yi nga xam ne ñoo nekkee ci daara daaru Tanzil étudiant médecin yi war a noppi seenum jàng ci atum 2019 bi rafetlu na jëf ji nga xam ne def nañ ko. ndax euh, njaboot gu toll nii euh, ku ñëw ngir yore leen seenum paj mag ña ndaw ña ñëpp nga seet leen. li war ci ñoom lépp nga def ko ci te garab garab yi mat na dara manqué wut loolu ñun santaat nañ ci bu baax te yitte ji mate na ko euh, taxaw bi mate na ko euh, garab yi mate na ko. su weesoo paj gi nga xam ne ñoom médecin yi amal nañ ko ci daaru Tanzil jox nañ ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yi ay conseil conseil yoo xam ne dañ ko doon teelu bu baax a baax.